ñu Abdoulahat Aw dañoo dégg jamono ji ci actualité bi li ci gën a fës muy maître Moussa Diop di directeur Dakar Dem Dikk xam le ni daa am yëg-yëg gannaaw ba mu déggee résultat wu élection yi fi jaar yëg-yëgam mooy wut wut bulldozer jële fi Ila Touba yóbbu ko def ko muy Ila Fouta ñu buggoon a xam yow ban jàngat na ci am waaw xanaa sant yàlla bu baax tey di ko xamal moom Moussa Diop moomu ni ko wax bala nga ko wax dama ko yóbbu rek ci téere fiq bi nga xam ni moo gën a jege ci téere fiq yi muy dari dañ ni daganul ci benn mu kallaf mu wax wax joo xam ni xamu ca lan mooy àtte ba moo xam àtte ba ca diine walla àtte ba ca waxam jooju muy wax ci lim jëm ndax bu jógee ni ila tuba googu da koy tasaare tudde ko ila fuuta kon mom la muy tasaare daa jaar tuuba dem lingeer wuti maatam kon mom daa wax lu mu xamut ndax mën ngaa jóge dakar jaar ba ila tuuba jóge tuuba dem lingeer àgg maatam kon bu ne da koy tasaare jeli ko Touba yobbu ko Fuuta kon wax joju cohérence amu ci wut méngoowut loolu moy li nga xamni lu ñeuk ngir lu wara leral ci waxtaan woowu rek moy nan xamni mom limu wax mengo wut mengo wut jeli Touba yobbu te yoon wi jaar Touba meuna jëm Fuuta kon loolu rek wut kon limu wax wax nako waaye ñàkk xam-xam man laay njëkk leeral ci moom mi wax ji mu wax. waaw mu mel ni sëñ Abdoulaye est-ce que jooju wax aussi mënuñu koo jàppee waxu ko mer wala it ñu war ko mën a jàppee waxu koo xam ni dafa contre. waaw moo tax nag borom xam-xam yi wax ni ku mer bul wax ku bëgg lool it bu wax te jàpp naa nit wax ji mu wax. moom mi ko wax bu demee ba ca kanam tuuti dina ko réccu xam tax mu di ko réccu ndax waxuwul ndax it même bu dee politique moo tax mu di ko wax ilaa Touba gi politiquement Touba da ko yelloo buñ jëlee cadre sax may sëñ Touba bañ koo tudd ndax it nu Touba mel rek sëñ Touba la waaye loolu aspect la boo xamante ni aspect religieux bi duma ko ci tontu. waaye damay dugg ci aspect Touba yelloo na ginnaaw dakaar Touba mooy fi nga xamante ni la la muy jur ci koom-koom ci ci ci amul benn dëkk bu ko jur waaw kon jàpp naa ni yoon li ko tax a jóg mooy gën a jàppandal koom-koom kon kay dëkk bu day ni Touba bu fa koom-koom nekkee ñu wutal ko yoon woo xamante ni day dem ba ca Touba kon ci koom-koom gi rek buñ ci sukkandikoo foofu dëkk ba yelloo na ko ndax dëkk la boo xamante ni xeet yu ne daje nañ fa di fa def xeetu yëngu wu ne di daan seeni doole kon dana jàppandal dem gi ak dikk gi waaye nag dem gi ak dikk gi nan la koy jàppandalee état bi ko fi samp da ko wutal yoon ni yoon yu ko fi jaar nangam ngay fay ndax ndax tali boobu état def état da koo lepp ay nit te it fay gi ña fay jaar ñooy fay tali kon ñu koy ñu fay jaar dafay fay tali bi état xam na ni moom tali bi kat defar naa ko lépp ngir teg ko ci leb waaye ci leb ji ma ko teg ñay dem ak di dikk ci di jaar ci Ila Touba gi ñoom dana mën a fay lu mën a fay tali bi ci diir bi nga xamante ni moom nañu ko lebal kon bu ñu sukkandikoo foofu rek xam na ni état bi ko def da ko def teg ko ci wàllu koom-koom koom-koom boobu nag Touba moo ko am marché boo nekk marché Ocass bokk na ci marché yi nga xam ni ñoo gën a influent ci Afrique de l'Ouest loolu ñoom ñi nga xam ne ay économistes dañ jàng loolu xam ko loolu Touba wane na ko waaye ba tey aéroport bi foofu bu nekk di jas kenn ko ne xam na ni Ila Touba bi am na ouverture boo xamante ni man ngaa jóge Touba jaar jas ci contournement boobu dem ci aéroport bi ginnaaw Dakar ban dëkk moo Modou Modou Touba kon jàpp naa ni liy dem ak di dikk ci Touba di voyage yi ilaa Touba géew gi koom-koom day duggaat kon. buñ ko tontoo ci aspect boobu rek danañ ko wan ni ko Touba bu du woon ak Serigne Touba baatinam ak mayam bu demee ba ca kanam dañ ko leeral waaye lii lépp dama ko doon leeral rek ci wàllu mu xam ni daal Touba yelloo na am tali bu mel noonu. ndax état bi ko def ci koom-koom la ko teg tegu ko ci faral waa Touba ndax it bu Touba yóllowul woon tali boobu koom-koomam nga génne ko état du jël risque di lépp loolu kon dayab dëkk ba moo tax mu am tali bu doon noonu état xam ne ni tali bi waa dëkk bi li ñuy li ñuy jëflante di fa dem ak dikk mën na koo fay moo tax état def ko.